donc la majeure partie de nos clients jóge woon baax nekk ay mburit ay fervent mburit ñooñu ñëpp bu ñu tiit bu ñu ragal comprendre cabinet bi dara dafa changé na ñuy ñëw seen cabinet la ñu liggéey la ensemble ci barke sëñ Touba ak sëñ maître euh, def c'était un homme véridique c'était un homme véridique mooy que ni euh, lu nekk sa xolam daf koy génn benn yoon mu il ne triche pas tey si la maire daf lay wax lii ak lii ak donc en plus c'est un homme de droit c'est un homme de droit parce que l'un son cabinet des dix meilleurs cabinets du Sénégal son contentieux fait partie l'un des dix meilleurs contentieux que le Sénégal compte donc c'était un grand cabinet donc ce n'est pas pour rien que on a formé beaucoup d'avocats ñoo xam ne ñëw nañu ñoo ma fa fekk formé nan leen ñu def man euh, mën nañu compter en ce moment presque trois ou quatre avocats yoo xam ne man rek fekk nañu fa ba leen formé ba nu dem tijji seen cabinet donc pour te dire que ni cabinet boobu c'est un cabinet d'avenir un cabinet boo xam ne vraiment vraiment képp ku bëgg jàng mën na fa jàng loo bëgg mën na ko jëriñoo ci barke seen programme loolu